daal 2000 jëlal lii ci dëkk bu sell bii di Touba bokk na ci marché yi gën a rëy ci réew mi mën nañu wax sax ne marché sous-régional la ndax nationalité yépp yi nekk ci sous-région bi daje nañ fii. bu ñu ko doon xayma ci wàllu koom ci réew mi li muy peese dina diis lool lii ngeen di gis nii ak ñii ngeen di seen nii kenn ku ci nekk di yuuxu di siwal sam njaay am mbedd la bu ngeen déggee ñuy wax quartier Touba 28 mbedd mii moo tax ndax lii ngeen di seen nii 28 la tàmbale ci station 28 bi ba fa marché ba yem ci penku ñu tali ko tey fii may wax ak yéen boo fi bëggoon a jaar tey dangay puuxante mbedd mii ngeen di gis nag moo xëy takk jëppët vers une heure du matin lakkaale mbooleem ay centres commerciaux yoo xam ne nii ñoo ko féete woon ndeyjoor ak càmmoñ lakk gi metti lool waaye bettewul espace bu bët xaj ñu jàpp ne war nañ faa def dara moo xam puus-puus lay doon moo xam taabalu dénk lay doon moo xam mbaarum seng lay doon courant bi doog a dellu ñu di ko jokkale ci anam woo xam ne jaaduwul ñëpp xamoon nañ ne marché bi mën naa xëy tàkk waaye lii fi am bettul kenn te xamoon nañ ne it bés buy am dina metti lool ndax kat ay milliards tàkk na fi te lakk gi yàgg na lool ndax yoon jafe na bouche d'incendie amu fa moo tax mu fanaanee tàkk yendoowaat tàkk te lépp mu ngi bàyyeekoo ci xàll wu yaatu wi ñu duppee vingt 28 te ñu tàncaloo fi ba mu mujj jur lu mel nii bi muy lakk nag centre commerciale yi ko wër yëpp jàpp na ay bokki taaliba neewoon fa gis ngeen nii nga xam ne noonu lañ fi doon yëngoo laataa lakk gi bi mu lakkee ba noppi nii la mujjee te mbokk yi xam ngeen ne jëye yii di xew sénégalais ñaare duñ ci jàngee dara ndax fii may waxee ak yéen mbedd mi delloowaat nañu ko can na mu meloon nañu ñaan yàlla la xewoon bañ a xewaat Touba ca kanam nag ni ñu ko baaxoo di def am nañ ci xalaat am nañ ci gis-gis am nañ yéene présenté ko askan wi yëpp bu ñu ci déggoo ñu fexe ba indi fi loo xam ne dana dox suñu diggante ak yu mel nii ndax kat marché bi dañ ko war a sécuriser waaye xel daf cee war a dal ndax li ëpp ci alalu région bi fii la concentré wu ci biir marché Ocass xoddeeku bala nga lakkale te xoddiku baa ngi nii maskani Tuubaa baat misras mi abijaayi xayri ma nabaat waajal ilaahi maskani Tuubaa baat misras mi abijaayi xayri ma nabaat wasalliyan alayhi Tuubaa ca kanam nag am nañ ci solution ndax mbedd mi 28 mètres la buntu magasin ak buntu centre commercial bu ne dañu fay bàyyi juróomi mètre def cantine bu un mètre cinquante bu jàkkaarloo ak magasin def cantine bu un mètre cinquante mu jàkkaarloo ak tali diggante cantine boobu ak talibi ñu bàyyi fa ñaari mètre wet ñaari wet yépp nag boo ko jëfandikoo noonu tali bi dina des juróom-ñetti mètre ñu barrière ko ba nit ñi mën di dem ak di dikk ba ci oto yi sax difa mën di jaar di dem ak dikk. cantine yi nag par bloc de quatre kantin lañu koy def seen diggante dina des espace boo xam ne ni nit ñi dañ cay mën di dem ak di dikk di mën a gisit magasin yi nga xam ne ni ñoo féete ci gannaaw lii lépp nag conception bi bàyyi na xel toilette yi bàyyi na xel cet gi bay na xel ba ñi fay yëngu kenn ku ci nekk yem fa nga war a yem ci gàttal daal lu méngoo ak jamono lu méngoo dëkk bu sell bii di Touba. lii nag mooy yéeney Touba ca kanam ci marché buñ ci amee ndigalal sëriñ fas yéene ko ànd ak mboolem acteurs yi dooree ci commune bi nga xam ne ñoo yore marché yi sous-préfet bi fi nekkal état bi association commerçant yi lu mel ne assise ak ambulant yi délégué de marché yi ak mbooleem ñu yore centre commerciaux yi ak képp kuy bonne volonté te bëgg lu baax ñor la te nga nekk ci dëkk bu sell bi di Touba bàyyiwuñ kenn fajalu rabbi min nanan mu mu ajjala yaa xayu yaa qayyuum kulli ya mujib anta almujibu walkarimu walxarib ilayka waadaka farartu min siwaak fakun bisaaka xaayidi ilaa hudaak وليكن ربا وليا والنصير ولجميع المسلمين يا بصير وكسر الخيرات يا سلب الذي ورزقه والتدفيع عنك دين ولتثبتا فيه جماعة تقيم الصلوات الخمس دأبا يا عكيم ونجنا من سر هذا السمني وسر خيره وكل فتن